situation bi mo lay di dund fan yëpp wala sax weer parce que mu ngi bëgg yag mu nek lo xam fi toll ni euh ñi liggé ci walu secteur pêche bi yëpp ñu ngi ci ñakaré muy mol muy mareyeur parce que certificat certificat de celebrité yi nga xamanteni mo lay wara dagga pour jën yu mën a génne fan yii yëpp waa SONAPES nanguñ kaa def ndax am seen problème yu ñuy régler seen digënté ak euh, gouvernement bi té lolu euh mëna wax ni yoonu mo lay nekkuñu ci waaw. te moole bu ñu teeree war a jaay seen i jën euh, mareyeur yi jënduñu ko ndax xalaat ni bu ñu ko jëndee duñu am certificat de salubrité ah jën bi du mën a jar encore bu ñu forcé jaay jën jën bi li mu waroon a jar du ko jar ndax suñu jën dañ koy exporté su amulee certificat de salubrité du génn Sénégal de ça kon bu kees gi waroon a jar deux cent mille wala trois cent mille dañuy obligé di ko jaayee cent mille franc wala cent dix mille bu ko defee mool mi yaakaar njaayam trois millions dootu ko am day am un million cinq cent wala un million euh, trois cent mool mi doon yaakaar narub cent mille franc dootu ko am day am naru vingt cinq mille ki doon yaakaar naru trente cinq mille ndax euh, maaram neexul bu ñëwee farem day diit fu ñu toll nag loolu ñuy dundu ba station station yi nga xam ne ñoo jox mool essence sax euh, duñu am lu leen mën a fayee ñu joxe glace duñu am lu leen mën a faye ba si nourriture yi de ça mool gi mu ngi si crise bu garaaw fu mu toll nii waxtuma sax ay wax yi fare yooyu mais pour am lu ñu yóbbu seen kër sax pour mën a dundal seen njaboot sax loolu fi mu toll ni mu nekk ay jafe-jafe si si si si biir mool gi te loolu nag ki nga xamante ne mooy ndey mi léegi état bi moo ëmb ñëpp ah moom rek lañ yaakaar ni moom rek moo mën a régler problème bi ak nu mu ko mën a régler de ça encore tamit ñi nga xamante tamit ñooy gàllankoor euh, nit ñi ndax seen i euh, euh, soxlay bopp ñoom tamit ñu ngi leen di Euh, mbir mi nañu xool euh, ñëpp bañ xool seen bu bopp rek parce que tamit mool gi mënuñu nekk ay millions yow nga nekk ay trois cent personnes bëgg leen a gàllankoor si sa intérêt personnel boobu loolu jaaduwul te encore wax euh, waxante dëgg dëgg rek gis nga ñu ngi balaa mi état bi suy bëree bëree bari te lu si ëpp si ñun la si ñun la ndax ñi fi am ay salaire di ko fayeeku yëpp si secteur yi ñu ci bari lañu am si biir nit ñi ci seenu nduxum mo ëpp seen salaire fouf te nit ñaa ngi koy nit ñaa ngi xam te wax ñu leen dara ba ci mol gi suñu napp gi ñu nekk ni amul benn station bo xamante tay mol mi mu ngi mu ngi daga bon ñew dila ko jox te mol mi waro ko jaay essence te amul bon il fois mu ñew nga daga 100 francs ñi 200 ñi 500 ba ci gaalu maar yi mag yi dañuy dagg cinq te def

état bi ñaka pexé jël yokk seen salaire mais yok salaire gogou ci bir néew ko du doole gi lay perturbé parce que lay waro a ci ñom pour mëna leen a satisfaire orienté leen dèjà danañ ko jox tok askan mi di xif di mar di yuuxu ñu naan gouvernement bi fekk euh, secteur yi ñoo leen teg pression bo xamanteni tatani lepp lépp ñom la ju joggé kon nak nañ xol li ñuy def presque ñu ngi si sikka état bi te sikka gi mu ngi nekk ci secteur yi nan leen yërëmante ñun ñëpp ben lañ kenn mënu dem bay sa morom té nak li ñuy seetaan su mo seus nañ bu mool gi demee ba euh, réussir lan la mën a jur su boobaa kaaw Sénégal lay doon fi mu toll ni sunu kaa la ñun rek ñoo ko yëg waaye ñun bu ñu réussiree kaawu Sénégal lay doon kon loolu nañ ci jóg balaa ñu faa yëg man gis naa ne mool yi tol mu nii sës nañ kon nag nañ fexe nañ ko saafara suñu mu gën a gaawee